asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal cheikh muhammadul muntaxa sun borom subhaanahu wa taala dolli ko fee yàggal te may ko ak wér ba yéene ji am ci liggéeyal sunu borom yéene ji am ci liggéeyal Serigne Touba mu àggale ko doon ànd koog moom di nuyu mbokki ñuy seetaan yépp di leen baalu xaq te di leen baal ah, mu mel ne ah, ñoo ngi fii ci kër Serigne Djily Gànnaar ah, moom sëñ Mor Soxna mu borom saam nekk ci wàccaayu màggalu borom saam muy màggalu Mbàkke xewar ñu am yéene def benn plateau ànd koog njabootu Serigne jiili waaye ànd koog taalibe ngir waxtaane sëriñ Mor Soxna ak sëriñ Jili Gànnaar ah, ci taxawaayu daayira taawuna alal birri wa taqwa di siyaare bu baax sëñ Maam Mor Mbàkke xam sa mi nga xam ne moo nekk ci kanam njabootu sëñ Jili Gànnaar ñu nekk fii ci ab ëttam di ko fi defee teyit moo nekk ci kanamu daayira bi di siyaare bu baax ak mboolem ay rakkam di leen jaajëfal tey ñaan suñu borom mu dal aw fanam lool te may ko ak wér ba yéene jëm am ci liggéeyal sëriñ bi suñu borom may ko kàttan gu mu ko àggalee mu mel ne li ñu leen ko junjee rek incha allah rabbi am nañ yéene ànd ak kenn ci njabootu sëriñ jiili muy sëriñ Seexuna Mbàkke gànnaar ngir mu waxtaanee dun lenn ci dunduk sëriñ Mor Soxna ah ci ak ganem jamono li ci xaj waxtu wi rek incha allah ba fi. ak ay jaar-jaaram lu mu ci lu ci xaj ci waxtu bi rek incha allah gànnaar bu ko defee bu noppee incha allah fas yéene fas nañoo yéene ànd ak Serigne mu dikk ñun ci lenn ci dundu sëñ jiili gànnaar kon bu bu ko defee incha allah ñaari euh, gan yooyu lañ fi war a am incha allah ñu ànd ak ñun plateau bi bu dee buñ ci noppee it euh, Serigne Mahmoud kenn la ci njaboot gi moom dina dikk soññe ci wàllu taxawaayu. li war taalibe yi ak li war njaboot gi ci biir kër gi bu defee bu ñu noppee dinañ jox sëñ sëñ Mor incha allah mu tëj jataay bi ah, fàttaliwaale màggal gi ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ak ñi nga xam ne ñooy soppe yi incha allah kon ah, palaatu bi nii lañ ko fas yéenee tëralee kon incha allah dañuy ànd ak sëriñ Seexuna Mbàkke gànnaar bu ko defee mu dikk ak ñun ci ah, lenn ci dunduk sëriñ Mor Soxna ndax lépp xëjut ci waxtu wi waaye nag lenn ci ak dundam rek loo xam ne ko mën yóbbuloo ngir waaja waajalee ko màggalu eh, borom saam gi di bëgg a ñëw kon sëñ Seexuna tafaddal maskura bismillah aoudu billah bismillah inna waliyallah ma tawfiqiya illa billah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala xayri xadimihi abdillah waltu ma in asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi jàkkaarloog ñun ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu sell bu màgg boobu di ñaan yàlla li ma làmboo di jàmm di yërman di barke yaa nu ko yàlla boole defal. di ziyaar Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo nekk ci kilifa moo mooy kilifag yoon wi di ñaan sunu boroom mu dëgëral ab taxawaayam te yàggal ko fi ba yéenam yëpp mu matal ko noonu lañ koy ñaanale itam njabootuk suñ Maam Mor soxna jaara te ki nekkee ci bopp bi di sëriñ Abdoulahi Mbacke noonu lañ koy ñaanale itam ki nga xam ne moom lañ fas yéenee waxtaan te di sëriñ Mor Soxna ak njabootam te ki nga xam ne moo nekk ci bopp ba tey di sëriñ Baara Beto di ñaan yàlla mu yàggal ko fi wéral ko waaye ki nga xam ne itam moo nekk eh, xalifa sëriñ Jili Gànnaar di sunu xalifa di sunu kilifa di sëriñ Mor Mbacke xam sa diine te mat sëkk ab jataayam moom ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu gën koo yàggal te wéral ko te ba yen bi nga xam ne moom itam mi ngi ko yenu suñu borom woyafal ko te yeggale ko ak jàmm boo ko defee sëriñ Xaadim ñu kon ni nga ko waxee dañuy def ay jataay yoo xam ni dañ koy waajale màggalu Mbàkke Xewar ñi koy taxawee itam di daayira bi nga xam ne mooy daayiratu taawuni alal birri wa taqwa sosoo ci kër gi ndax sëriñ Jibril Gànnaar ci boppam moo nekkoon jëwriñ ci moo ko tuddee noonu itam ginnaaw bi mu fi jógee ba tey itam ki nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi muy sëriñ Mor Xam si diine jiite ko di ko doxal ba tey nga xam ne ñoom ñooy taxawee màggalu Mbàkke Xewar mu mel dana jaadu nag ginnaaw dañoo bokk ci kër gi bokk ci njaboot gi itam ñu xam le ci lenn ci jaar-jaari sëriñ moo soxna mi nga xam ne mooy wër jur mooy wëy jur sëriñ ci li gànnaar te njëkk a nekk itam xalifa Mamoor jaar ci kaw suuf bu ko defee euh, loolu dana tax ñu mën cee jànge ndax mag ñi bu ñuy waxtaane seen dund loolu rek moo nekk solo si nañ mën a jàng ay bind ci seen taxawaay ba mën a jaar ci seenu yoon rawatina ñi nga xam ne ñooy njaboot gi ndax amaana suñu borom boo leen ci ñi muy wax ni ne wallazina amanu wa tabaatuhum duriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim duriyatihim wa ma aladnahum min amalihim min shay yàlla na suñu borom yéegal ci ñooña boo ko defee loolu tax nag ñu fas yéene waxtaane lenn ci dunduk sëñ Mor Soxna di ko mat a waxtaane itam ndax daa bokk ci mag ñi nga xam ni eh, yàlla dogal na jaaruwaay ba nit ñu baax de jaar ñëpp jaar na jaar na fa jaar na itam ci ron Serigne Touba nekk fa di ko liggéeyal mboolem ña nga xam ni ñoo liggéey Serigne bi ba am ngërëmam am mboolem na nga xam ni bëgg nañ ko ci àdduna ak àllaaxira fañ jaar ba am ko yëpp moom itam jaar na fa mm, ci gàttal fi nga xam ne doomi soxna dana fi jaar fépp itam maanaam jaar na fa loolu nag la ci jiitu xam léegi xëy na liñ gënoon a xam ñëpp miin ko moom mooy taawu maam Mor Soxna Jaara mm, waaye nag ci waxtaan yu mujj yi nga xam ni sëriñ Afee ña ngi doon na ko def ci lañ dem ci lañ doog a ectichafee ni que suñ suñ suñ maam Mor na jeneen doom joo xam ne moom ak suñ Mor Soxna xëy na des ko yéex a xam nag mooy ko ñuy wax sëñ Ibra Kan ni ndaa demee ak ndaw te bàyyiwu fi njaboot moom mi ngi nekk ci Mbàkke ci wetu barabu sëñ Mouhamadul Yadaali wax nañ ne fa lañ ko denc maanaam ci biir barab ba ginnaaw bi nag ci la sëñ ma soxna doog a gënee jamono mooy itam bi nga xamee ni mi ngi gënee jamono loolu mi ngi nekk ci atum 1883 ama sachi mooy at mi nga xam ne ci la fi Maam Mor Anta Sali bàyyi ko kon loolu lu yàgg la waaye ba la ñëw ci loolu sax maanaam dañuy njëkk a wax euh, maanaam jëmmi askan wi nga xam ne fi la feeñe ndax xam nga mag ñi daa bokk ci li nga xam ne euh, war war nañ koo ci ñoom itam mooy ñoom dañ daa tànnal seenu njaboot ndey ju baax ndax day mel ni cosaan li nga xam ne moom bu baaxee rek mboolem du juddoo ci moom mu di bànqaas dañuy dañuy dañuy jàpp ak baaxam dañuy jot ci moom itam ak rafet loo tax ñoom buñ mosaan di wut soxna wala boog di waajal seenu njaboot ca ka ñuy tànn muy ndey jëma cere la ñuy njëkkee niñ koy defee itam mooy dañuy dem ci kër goo xam ne ñëpp xam nañ ne kërug diine la ñu cosaanu lañ itam ci xam-xam ñu cosaanu ci ak mbaax ci ak jikko ju baax ñëpp xam leen bu ko defee foofu la ñuy tànnee ji loo tax soxna Njaay Sourang mi nga xam ne mooy wayjuru sëriñ Mor Soxna mi nga xam ne moom la ñuy waxtaane wax na ne bi nga xamee toll na ci denc ko sëriñ bi ci boppam moo ci dox ay jéego am ñum yebal nga xam ne ñoom ñoo ca dem ñu soxna Ndiaye Sourang moomu moom itam naka noonu nekk nekk koo xam ni maanaam ci askan wu baax la bokk ñoo xam ne ñu ñu xame ci rafet jikko way juram ñu ngi koy wax Yuusu Aminata Sourang way juru Yuusu Aminata Sourang itam ñu koy wax soxna Maram Diop sekk moom dañuy wax ni moo ko way juru Sëriñ Daam Abdourahman loo ñoo bokk lépp maanaam ay chaq yi chaq yi xataan lañ ñoom ñaar ñoo bokk lépp nga xam ne kon loolu day mel ni mooy li nga xam ne moo ko dugal Eh, ci biir askanu ndaam te ko ne xam na ne ñoom askan wuñ wuñ yàgg a xamee lañ ci diine naka noonu sàmm li nga xam ne mooy cosaanu diine itam mooy xam-xam naka noonu itam du ñu am lislaam naka noonu itam ni nga xamee way juram mi nga xam ne mooy Mamor Jaara dina xam ni yu naan di taarif mu ko ne xam ne ne moog Serigne Touba ñoo bokk lépp ñoo bokk ñaari way jur na ay jaaruwaay ay jaaruwaayam yitam képp koo xam ne xam na ko dana xam ne moom ay jaaruwaay ay ay ay ay maanaam ci jaaruwaay yu baax fala la jaar waaye yàlla dogal mu bokk ci askan woo xam ne ñoom ñëpp itam ay nit ñu baax lañ ñu ñu xamee diine lañ zun noonu ba mu koy mas yàlla moo waxoon ne abaauhu awliyaun kulluhum solaha yaa nicma ma nataqu sirran wa ma sanau ne mooy ki nga xam ne ay waajuram boo ko toppee ba ci ay maamam ñëpp nekk nit ñu baax nekk nit ñëpp nekk itam ay xëj xëji yàlla yoo xam ne lépp lu ñu def wala ñu wax ko rek tànneef lay doon ñu ñu nekk ay royukaay kon ñooñu ñoo de ay juram day mel na nag moom baax googu nga xam ne moo nekk ci ay wayjuram dañuy wax ne sax xëy na wayjur wala boog maam la mu def boppam la ko defal waaye nag nit ki nga xam ne moo am cosaan lu baax lu mel noonu day mel loolu royuwaay la wala boog day mel loolu fondement la boo xam ne bu ca tabaxee rek day yomb mu baax nga xam lu mu ca teg rek boobaa dafay mel ni ki da koy yombal aw yoonam mi ngi ñëw jamono kon ci atum ama sachin fi nga xam ne fi la feeñee Porokhane muy 1300 loolu nag mi ngi dëppoog bu fekkee ci ati miladiye la mille 1883 mooy at mi nga xam ne ci la Maam Mor Anta Sali wuy ji boroomam mi ngi feeñee itam ci poroxaan ndax xam nga eh, ginnaaw woote Maba booba nga xam ne ñu bari dañoo bàyyi ko fii dem Saalum Maam Soxna Jaar daa bokk ci ñi nga xam ne dañoo nekkoon Saalum ginnaaw bi itam defaat nañ fa ab diir nga xam ne ba ci 1833 googu fa la ko fekk wala boog 1883 fa la ko fekk moo tax suñ Mor Soxna wax nañ ne foofu la ganee jamono e, mi ngi nekk itam bisu àjjuma moom nag yàlla daa def lu ki lu ci dat bi mu fi bi mu ganee jamono ak dat bi mu fi jógee ndax yëpp ñoo bokk ndax lu ci nekk ci weeru jumaadal uulaa la ñaar fukki fan ya la tollool di bisu àjjuma nga xam ne bis mu mel noonu ci la feeñ jamono waaye ci la delluwaat ci boroomam itam Eh, te ak dundam itam bari ndax juróom fukki at ak ñett rek la dund bi nga xamee toll na ci wàllu jàng itam ak ñu yar ko ki nga xam ne moo ko njëkk a jàngal mooy way juró boppam di Maam Moor Soxna Jaara ndax ñoom dañoo baaxoo woon seen doom ñoo koy njëkk a seen bopp ñoo koy jàngal koy dalal li nga xam ne moo war ci ñoom donte day jàngi feneen itam ñoom ñoo koy dalalee seen bopp nga xam ne ci ñoom lay njëkkee waaye wax nañ ni moom lépp ci way juram la ko jàng muy Maam eh, Soxna Jaara moom moo ko toppatal boppam ci wàllu jàng jàngal ko alxuraan ba mu mokkal te kon ne xam ne itam Mame Mor Diarra kon comme jàngal alxuraan wax dëgg yàlla ko ku mën alxuraan ngay doon ndax ay jamonoom moo nekkoon mu saxix bi nga xam ne képp kuñ masaan ne man na alxuraan ci moom lay jaar bu ko seetee ba xam ne alxuraanam wér na bu ko defee mu dog koo ijaasal waaye ko masaan a am xam-xam itam ba tey ci moom la daa ñëw moom itam bu ko nattaleel ixtibaar ko xool ko ba xam ni li ñuy wax ci moom xam-xam bi dëgg na bu ko defee moom itam mu ijaasal ko Eh, te maanaam alxuraan itam li ci seen Mouhamadul Fadal waxoon rek ni ku dul eh, ka ma joxe woon muy Serigne Touba ak kañ ma joxoon muy Mame Mor Diarra xam naa ci alxuraan ay daqaayiq ay sew-sew yoo xam ne xamoo ko ci ndax ni mu mënee woon alxuraan ak sew-sew yi nga xam ne moo nekk ci biir ak tafsir ak li nga xam ne moo ci aju nga xam ne moom moo ko moo ko jàngal ba mu mën koo tajwiidan wa tartiilan wa rasma man koo jàng man koo mokkal man koo tari man koo xam li nga xam ne moo ci nekk itam ci ay na naka noonu mën koo bind loolu itam ginnaaw bi mu noppee ci euh, alxuraanam itam wax nañ ni moom moo ko tëralal xam-xam nga xam ne li ñuy jàng fii ci al ulumu shar'iyya wala adabiyya yëpp ba tey moom moo ko jàngal. xam bu dee alxuraan ji sax am na luñ ciy faral di wax naa ay jamonoom am na mag ñoo xam dañ daa ngunum ngunumee ci suuf naa moom ka ak mokkalam daa dis dañ ko gis muy muy muy tari alxuraan ak yu mel noonu. wala wax ji bi mu demee ba àgg ci borom saam te moom ab jataayam da daa bari ñoo xam dañ fa daa toog eh, ngir bëgg a teggi tuuma jooju mu woolu ko ba mu ñëw. ma ne ko damaa bëgg nga tari alxuraan may dégg wax na ne foofu ma taxaw fa la ko taree li tàmbalee laan ba minal jinnati wan naas ci teewaayu ñëpp nga xam ne gëggu ci runge wut yàqut benn yoon kon mokkal alxuraan dëgg-dëgg foofu la mën a yem ginnaaw bi itam mu jàngal ko ba mboolem li nga xam ne aajo woon ko ci wàlli xam-xam yëpp itam mu jàng ko xëy na am nañu naa jaar na ndar ci wàllu njàngam yu mel noonu waaye xam naa ni ak lu ci mën di xew lu ëpp ci am njàngamam ki nga xam ne moo ko jàngal taxawal ko boppam mooy wayjuram di Mame Mor Diarra loolu it bind bu am solo la mooy sa doom boo ko amee yow yaa ko war a toppatal sa bopp rawatina bu fekkee temps bi may na la ko nga xam li ci war ci am njàng ak ci ab yër lépp moom moo ko taxawul boppam ndax dañu wax ne alxuraan bi nga xamee ne mi ngi joxe masuuliya kenn ku nekk la mu war a def way juri la jox masuuli masuuli yëpp ñoom ñoo war a taxawu seeni doom ci jàngal leen yar leen ndax moo leen musal sa war a ëllëg yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum a ahlikum naaran waquduha annaas wal xijaara yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla na ngeen fegal seen bopp ak seenu njaboot sawara bu ko defee moo fasiroon dan naa ni nga koy defee nag mooy teg ko ci yoonu waxam ne bu ci wàccut dana tax mu mën a mucc sawara waaye dana tax itam mu mën a eh, fàggu la nga xam ni moo koy may ak texe ëllëg bi nga xamee ni jàngal na ko ba noppi itam nga xam léegi nekk na mukallaf daf koo teg ci wetam nga xam ne moom la daa doxale digganteem ak ñi nga xam ne ñoom la daa séqal maanaam ñim daa defal la nga xam léeg-léeg day yónnee ci diggante mag ñeeg yu mel noonu bi nga xameen dem na rawatina bi nga xameen dem na ba yu bari mënatu ko sëñ Mor Soxna moom moo ko daa taxawal ci yónnee yooyu eh, siiw na bi sëriñ bi di nekk Ceyeen eh, Jolof xam na ni ba muy doog a dem Mamor eh, Mamor Diarra fekk na ko fa wenn yoon boo xam dafa ñëwoon ngir moo ko doon yeesalal wirdu Maaxus bi nga xam ne joxoon na ko waaye teewul wax nañ ne at mu jot nag daan na ko yónnee ay addiye yu baree bari yoo xam ne suñ ma soxna la ko daa daa jaarale mm, yoo xam ne ay sëf ay sëf lay doon ay addiye yu baree bari yoo xam ne wax nañ ne dem na fa lu dul benn yoon du ñaari yoon yoo xam ne moom euh, maam borom sax moo ko daa yónni mu fay dem waaye suñ ma soxna niñ ko waxee ak dogu gi nga xam ne amoon na ko ak bëgg itam lépp loo xam nitug yàlla dana ko am wala ab murid dana ko am mu bëggal ko boppam looloo tax nag ginnaaw bi mu laxas dal di dem yoonu boppam fekk sëriñ bi ci yéen jolof jox ko boppam maanaam bu ñëwee ci ak jébbaloon xam nga bu dee yoon yu njëkk yi moom suñ Maamoor jaar moo ko daa yabal boo demee dal di yóbbu yónni li nga xam ni wax na ko bu ñëwee dal koy wax sëriñ bi dal di delluwaat waaye mu dem ba ay jamono moo xam ni kat liggéeyee sëriñ bi moom mbir a ngi ci te itam sëriñ bi am na lu muy joxe te loo bokk-bokk ak moom ak loo ko jege-jege lay tax nga mën cee cëru mooy liggéeyal ko loo tax nag mu am dogog moom itam maanaam bokk ci ñi nga xam dañuy cëru loo tax mu am yoon woo xam dafa laxas nga xam ne way juram yónniwu ko mbal sax mën naa am yëgu ko li mag ñi daa tuddee laxas rek mu laxasal boppam daal di dem ci yéen jolof bi mu ñëwee ci sëriñ bi itam xamal ko ni dama ñëwal sama bopp te xam naa ni kat lépp loo xam ni e, nit mën na koo am fi yow bu fekkee ci wàllu mbokk la mën naa koo am ci yow ndax bu dee mbaay gi mi ngi fi sama baay nga bu dee ndoom gi itam bu nuwa gi mi ngi fi sama e, maanaam sa doom la waaye nag dafa am loo xam ne yàlla dala ko jox nga koy cërale te jàpp naa ne képp koo xam ni liggéeyul la du mën a ci loolu damaa ñëw nag tey ji ngir bëgg ab cër ngir bëgg a cëru ci loolu te lépp lu koy maye nag pare naa ngir def ko ndax mën na maa gor mën na maa yat mën na maa bay mën na maa bind loo ma sant daal loo xam ne mën naa ko def ba mën cee am sa ngërëm loolu wala mën cee am loolu nga xam ne yaa ngi koy séddale eh, ni ko noppi naa ngir def ko nga xam ne kon loolu li muy wane moom mooy koo xam ne am nag dogu am na yitte ju kawe maanaam pare na itam ngir lépp loo xam ne mën na koo may ngërëmul sëriñ bi mu def ko euh, euh, loolu kon dogu dogu gu rëy nga xam ne amoon na ko dana fi dana feeñ ci loolu euh, ak ñàkk jombalu dara itam ndax bari na ci ñun ñoo xam ne léeg-léeg nit ki boo xa boo xawee àgg fu kàll fi tut day jàpp na yu bari jomb na ko waaye moom nga gis bi mu ñëwee ci kanamu sëriñ bi moom lépp loo xam ne mën na koo may moom jombaliwu ko boppam te bu ko sëriñ bi digaloon muy yett wala muy gor ak lu mën a doon rek moom dana ko def ndax loolu jàpp ne ne moo ko mën a may ngërëmul sëriñ bi te lépp loo xam ne mën na koo may itam moom noppi na ngir def loolu ba waxee loolu sëriñ bi nag sëriñ bi daf ko daf ko faatee ay fan yoo xam ne daf ko doon binduloo xam boobu sëriñ bi fekk na ak njabootam ñi ngi ñi ngi fi moom ku mel ni sëñ Mouhamadou Fadal ma nga fa woon ku mel ni sëñ Mouhamadou Moustapha ma nga bokk ci mbokk gi ku mel ni Eh, eh, ku mel ne que Serigne Abdou Dia Mbacke du yooli ma nga fa woon nga xam ne ñoom ñëpp nag dañ daa xëy buñ xëyee ci bindal sëriñ bi ci la ñuy yendu ci la ñuy fanaan nga xam ne ko bind ab kaamil ba mu jeex rek mu dal di tàmbaliwaat beneen léeg-léeg itam ñu bokkaate ay kaamil nga xam ne kii day bind xaaju kaw kii bind xaaju suuf léeg-léeg ñu bokkaate ko noonu bi ñëwee nag moom Serigne bi ci ñu la ko dugal nga xam ne wax nañ ni ba dee Serigne Modou Moustapha moom moo moo féete woon nag eh, moo féete woon ak Serigne Mor Soxna nga xam ne ñoo bokkoon benn lal buñ daa fanaan Cheikh Mouhamadul Fadal moom lañ boole woon ak sëñ Abdou Mbacke du yoole nga xam ne ñoo bokk ñoom itam benn loolu bu daa fanaan noonu lee sëriñ bi boole woon nga xam ne foofu téenu ko fa ci yéen jolof lu mat juróom-ñaari weer yoo xam ne ci bindal sëriñ bi la nekkoon foofu danañ fe taxaw tuuti mooy sëriñ bi ñi nga xam ne daa na leen liggéeyloo ci alxuraan fonkoon na leen lool ndax daa seet lim gën a fonk nga xam ne moom daf ko boole ci ay liggéeyam eh, féete woo ko mooy alxuraanul karim kon ne xam ne liggéey na ci lu lu lu rëy rëy looloo tax mu am ci ñoo xam dañ ko daa bindal am ñoo xam dañ ko daa jàngal kenn ku nekk ak la nga xam ne mooy liggéeyam eh, da ngay fekk Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana di ko wax eh, ci Irwa ul Nadim naa mas naay di xool ñi nga xam ne ñooy bindal sëriñ bi ñëpp ni ñu toll nee na ma lim ko di ko gam-gam léegi ñi nga xam ne ñoo daay bindal yonente bi alayhi salaam ñun tuddee woon kutaabul wax yi xam ne yonente bi bu aaya masaana wàcc am na ñoo xam ne ñoom la daa woo nga xam ne ñoom ñoo ko daay bind bi ma delloo ci taarix ma xool ñi daa bindal yonente bi alayhi salaam nga xam ne mooy kutaabul wax yi mu tolloo nett ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi daay bindaloo nga xam ne kon sëriñ bi léppam daf cee royoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loo tax nag ñooñu sëriñ bi joxoon leen dayo dayoo bu kawe te mboolem ñi nga xam ne ñoo ko féete woon ci wàllu googu itam di ko bindal boo xoolee ñëpp boroom ay xejj la ñuy doon waaye boroomi mbir yi tam la ñuy doon maanaam boroomi cër la ñuy doon bi nga xameen tee na ko fa moom sëriñ bi tee na sëriñ Mor soxna lu mat juróom-ñaari weer mu nekk fa di ko bindal ay kaamil wax nañ ni itam diir bi nga xam ne mi ngi nekk foofa xam nga sëriñ bi da daa bind guddi sëriñ bi da daa bind guddi moom waxtu wu nekk ni mu daay bindee bëccëg naka noonu la daa la daa bindee guddi nga xam ne bu masaane yëndoo bind itam guddi gi ba tey daf daf koy def te boobu itam fa mu nekk sori na ku ne xam ne ni xeet yi amutoon lu mel ne ay xeeti làmp ak wala ay courant yu mel noonu wax nañ sëriñ bi làmp pétrole la daa binde boo xam ni nit moo ko daa tiimale maanaam yoral ko lampe doon nga xam ne daf koy gàddu nii maanaam tiimale ko sëriñ bi di bind ba ba set wax nañ loolu ñaar ñoo ko seqoon dak ko yoral muy sëriñ Abdullahi eh, sëñ Abdou Mba sëñ Abdou Dia Duyoole mi nga xam ne moom la ñu wax léegi wax nañ ne moo daa def bu téyelee sëriñ bi mu fanaane bind ba ëllëgee suñ moo soxna mooy jël nga xam ne ñoom noonu lañ ko daa awante bi mu fa amee lu mat juróom-ñaari weer nag ginnaaw bi sëriñ bi daf ko woo dal ko yebal dal koy yebal njàmbur booba am na ku ñuy wax suñ suñ Mansour Jaw moo fa nekkoon boole ko ay taalibe ne ko dama bëgg nga dem féete fa bu ko defee daañu daggal suuf ngeen mën faa nekk di bay nga xam ne kon ginnaaw bi mu jógee ci mbind mi dafa mel daf koo yebal maanaam ngir mu bayal ko ba mu demee nag wax nañ ni ba waxtaane suñ Mansour Jaw moom dañu ko ah, kat yàlla dogal na suuf si dafa sàppi xam nga barab boo xam ne yàgg nañ koy bay day dema dem ba dañ naa suuf si day sàppi nga xam ne mënutoo fee bay daana ko lu jekk ni ko waaye jàpp naa ne boo demee fu mel ni pakala moom suuf sa baax na eh, te boo demee itam boobu ku ñu wax sëñ pakala moo fi nekkoon nga xam ne moo nekkoon borom dëkk ba ni ko boo demee moom mën na laa dëggal lu yaatu loo xam ne xëy na da fa mën a féete da nga a féete di bay bi mu ko yónnee sëriñ pakala nag wax na ni ginnaaw bi ci la ànd mbooloo moom daal di dem mu demee waxtaan ak moom loolu moo ko yóbbu pakala ko ne xam nañ tey ji pakala eh, lenn ci njabootuk maam borom sam fa suñ maam borom pakala siiw na nga xam ne moom moo fa féete woon Eh, defoon na fa daara ju yaatu joo xam ni ba tey ji ak njabootam ñoo fa nekk bi ñëwee moom ci la ko daggal suuf si yaatu nga xam ne foofu la féete woon di bay waaye bi daa bay yàlla def na dadaa def at mu jot bu nawet bi di tàmbali mu tàmbali di bay day tàmbaliwaale waale ab kaamil boo xam daf koy bind day tàmbali waale ab kaamil boo xam daf koy bind nga xam ne mbay mi lépp bu sottee moom dara du ko ci dara du ko ci yitteel maanaam du ca du ca barkeeloo dara wala boog mu cay mos dara ndax ñoom noonu la seenu dugg foofu la tolloon dañ naa lu jëm ci sëriñ bi moom sëriñ bee ko moom yow mi nga xam ne yaa ko yaa ko def sax yow sañoo ci maanaam amoo ci benn sañ-sañ nga xam ne lañ ko daay jëlee dal koy eh, jox sëriñ bi wax nañ nag bu masaana tàmbali ab kaamil mbay mi itam tàmbali nawet bi bu masaana bay ba lépp yegg nag bu yóbbu addiyee ja nga xam ne mooy mbay mi wax nañ da koy boole kaamil boobu dal koy jébbal sëriñ bi nga xam ne kon boole woon na di bayal sëriñ bi naka noonu di ko bindal itam loolu nag wax dëgg yàlla lu kawe kawe la te lépp itam day dellu ci yéenu ji rafet ji nga xam ne amoon na ko ak dog ji nga xam ne amoon na ko ndax lépp loo xam ne mën na koo may ngërëmu sëriñ bi ndax sëriñ bi ci mbind la njëkk a tàmbaleeg moom ginnaaw bi mu ko yebalee ci bay itam teewul mu ne ginnaaw maa ngi bay itam teewul naa koy boolewaale mbind mi loolu mooy sababu bu masaan di bay itam ngir buy yóbbul sëriñ bi li nga xam ne moo juddoo ci mbay ba tey dafay bindaale ab kaamil tootaa wax nañ ne am na kaamil boo xam ne bi mu ko jébbalee sëriñ bi sëriñ bi dafa euh, wëlbati ca fegg wadal ci bind lii allahumma bi xaqi wajhillaahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi teg ci ne waj si kaatiba haasal mushafi xayran tudxiluhu aljannata allati waxida almuttaquuna bila xisaabin amin ya rabbal alamin teg ci subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin ndax léeg-léeg bind lu ma sànd gàtt gàtt rek moom daf koy tëje loolu ginnaaw bi mu jullee ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi daan yow sunu borom maa ngi lay ñaan ki nga xam ne moo bind kaamil bii yàlla na nga ko fay yiw woo xam ne da nga ko ci tàbbal àjjana ëllëg ci lu dul xisaab àjjana yi nga xam ne yàlla daf koo dikk ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ragal nga xam ne kon day mel ni sëriñ bi daa fàggule moom loolu fàggul nag ko noonu la ko def nag wax nañ ni nekk na ci diirum ñetti at waxtu wu nekk la muy bay di gën a yokk di gën a dolli ko di gën a bare ak yéenu ji rafet yi nga xam ne boole na koog loolu lépp def ko ci ak dogu ak farlu gi nga xam ne amoon na ko wax na ni bi mu amee ñetti at la ko sëriñ bi woo dal ni ko mën ngaa delluwaat ci sa way jur maanaam dal koy ngërëm dal koy gërëm gërëm ngërëm lu rëy nag te booba fekk na li ñuy wax ci dogu gi rek moom bi mu nekkee ci wetu maam Mor Soxna Jaara moom daf ko yitte woon nga xam lu baree bari ci ay soxla moom moo ko daa doxal boo wax na ni bi muy doog a dem sax moom sëriñ Mor Soxna bi muy doog a ñëw ci sëriñ bi Euh, xëy na Maam Mor Soxna jaar doon na ko dabuwaat ak di yónnee ci sëriñ bi di ko xamal ni moom kat daanaka moo nekkoon samay tànk moo nekkoon sama lépp waaye sëriñ bi daa jox sëriñ Mor Soxna maanaam mu tont ko daan ni ko dama fiy wut loo xam ne rek bu ma ko amee jàpp naa ni euh, dana tax ba mu ñëwee la ma mënoon fi yow dana ko gën a man sëriñ bi dal di bég ci lool lool nga xam ne kon lépp loo xam ni euh, loo rafet la lu ñu war a dox ak seen wéy jur nañu war a dox ak seen i sëriñ maanaam lépp dañ koy aw yoon loo tax nag mën na nit ki jàngal ko yar ko itam am solo kon dañ koy jàngal yar ko looloo tax man ni daa xam ni muy ni muy waxeek mag xam ni muy nekkeek mag loo tax itam ginnaaw bi nga xamee ni sëriñ bi gërëm na ko mu ànd ak mbooloo mu baree bari nag ci la ñëwaat ci la dellusiwaat Mbàkke eh, nekk ci wetu Maamoor Soxna Jaara yitam doon ko jàppale ci lu baree bari ndax moom moo nekkoon moo nekkoon doomam ju mag eh, ginnaaw bi nga xamee ni yàlla dogal na Euh, sëñ Maam Mor Jaara jóge fi nag moom moo njëkk a nekk ab xalifaam loolu mi nga amee ci bi nga xamee ni sëñ Maam Mor Jaara toxu na ci yërmande boroomam loolu mi nga amoon ci amatal sochin 1339 la tollool ci gàddaay gi tolloog itam wax nañ ne ñaar fukki fa ak juróom-ñaar ci weeru juin ci atum 1921 loo tax nga dégg ñu naa màggal gi nga xam ne moom lañ jëm dañ ko bëgg a def mu nekk centaine maanaam muy téeméeri at ba fi Maam Mor Jaara bàyyi ko ak tey ndax xam nga bu dee daaw la tolloo woon ak 2021 mooy téeméeri at yi waaye booba itam ak ni jamono ji demee woon tax na mëneesu woon a màggal wala boog mëneesu woon a woote moo tax léegi nag ren ji ñu bëgg koo def muy santeen at bi nga xam ne noonu la ñëwee ci communication bi nga xamee ni Maam Moor soxna Jaara bàyyi ko na fi ci euh, at moomu euh, da ngay dégg nag lu ci bari bu may wax ñaari may insisté naa Maam Moor soxna Jaar ñu baree bari Maam Moor Jaar la ñuy wax waaye dañuy bañ di sàllaw lu turu soxna Jaara Buso wi Eh, ndax wax nañ ni sax sëriñ bi bañ ko daa sàllalu soxna jaara naa jaare ji noonu rek loolu loolu taxoon moo ko daa wooyu magi mag wala boog borom saam ndax moo ko digaloon mu sanc saam ginnaaw bi itam mu tuddee ko borom saam daa nañ ko wooyu itam magi mag bu fekkee mënta ñàkk itam nga daaf ci nga idaafa ci jaare ji faaw nag nga ni soxna jaara bu ko defee loolu moo waral ñu koy faral di bàyyi xel tam a nga ñi itam dañ ko daa bàyyi xel bu baax a baax nag bi nga xamee ni maam moo soxna jaara bàyyi ko fi wax na ni ci at moom nag eh, ci la ko sëriñ bi woo ba mu ñëw loo tax boo déggee ñu naa moom moo njëkk a toog xalifa ci yoonu murit am na ñu koy wax naa moom moo njëkk toog xalifa ci yoonu murit ndax sëriñ bi nga xam ne moo woote yoonu murit sos ko moom bi muy toog xilaafa maanaam fekk na sëriñ bi mi ngi te boobu itam daawuñ def ko fi juram jógee rek maanaam mu dal di toog palaasam waaye yow ginnaaw sëriñ bi moo yilif ñëpp moom da dem ci moom boo ko defee benn mu tegle la sa palaasu way jur wala boog mu féete loolu feneen bi ko sëriñ bi woowee eh, daan ni ko kat mag moom la ndax Mbàkke bi ko maam maaram sancee ba tey ko masaana mag ci njaboot gi moom moo koy moom moo koy féetewoo te boobu fekk na ginnaaw maam Mor soxna jaar jógee na fi léegi sëriñ bi moo mag ci askan wi mu ne ko kon léegi Mbàkke maa ko moom waaye ci sama moomeel nag léegi may naa la ko nga xam suñu ma soxla daan na ko léegi nag dama bëgg nga dem bu ko defee nga toog fa féete fa donte téewul yeneen dëkk yi nga xam ne maam Mor Jaara sañcoon na ko yëpp itam daana ko taxawal lu mel ni ki daana fa nekk ay kilifa yu bare bare daanañ ko fekk mu leen ganale Eh, naka noonu itam Mbàkke noonu la fa toogee nag maanaam di sàmm dëkk ba di sàmm itam jëmmi askan wi nit yitam itam daana bàyyi ko fu nekk di fa dem eh, sëriñ Moussa sëriñ Moussa Ka daf koy wax ci masiye boobu nga xam ne moo ko moo ci masiye nga xam ne maanaam moom la defoon banaa kër sëñ Mor Soxna boobu ci Mbàkke dafa mel ne moo dafa meloon ne ab gaar la ndax moo nekkoon wàcci waayu ñëpp foo nit Moussa ne jógee rek bu ñëwee Mbàkke maam dafay seet nga xam ne foofu lay kii te ku ñëw itam dana la ganale booba nga xam ne ceeb mii ñu xam nga xam dañ koy jëfandikoo léegi la yomb rek waaye booba ceeb jafe woon na lool te wax na booba moom moom lañ daa añee di ko reere nga xam ne borom barke la borom barke woon moom di añee ceeb di reere ceeb <laughs> boobu moom jàpp naa ni eh, xëy na mbusoobe yi nga xam ne noonu lañ dund jamono boobu xawoon naa metti xam nañ li nga xam ne moo ci xewoon waaye moom yàlla defaloon na ko barke boo xam ne boobu la la nga xam ne moo jafe woon lépp moom yomboon na ci moom ba am na yenn kilifa yu wax ne boobu fii ci Touba gi lañ dëkk waaye boo añ masaana jot léeg-léeg danañ dox ba Mbàkke ngir añe ji fa bu ko defee doo ko del siwaat kon xam ne ne booba lay jaral nit ki dox diggante Touba ba Mbàkke wax dëgg yàlla mbir la da ngay dégg sax wax naa li nga xam ne moo ko tee li nga xam ne moo ko tee tabax këram mooy dimbali nga xam ne dafa nekkoon ab dimbaleekat boo xam ne ko masaana ñëw boo ñëwee dana la ganale ba da nga rus waaye booy dem itam dana la jox yóbbal bu am solo ko tabi woon la lool nga xam ne ci anam googu ci la yore Mbàkke téye ko defaraat kër ga la xam ne moo ci aju lépp mu defar ko diggante mi nga xamee ne ci la tooge nag mi ngi toll ci fukki at ak ñett moom la wutu waajuram sëriñ moor soxna Jaara euh, dégg nga sëñ Musaa Ka ngi koy mas mi ngi mi ngi def mi ngi melal itam ngan goo xam ne sëriñ Mor soxna mas nag koo ganale foofu ci euh, ndokk ngan goo xam ne yéeme na lool te lu bari ci njabootu sëriñ bi itam wax nañ ni dañ ko fa daa fekk moom itam mu leen di mu leen di ganale léegi ñu ñëw ci relation bi nga xam ne am na ko ak ñi nga xam ne ñooy njabootuk Seexuna Ahmadul Xadim kon nga xam ne ni moom dafa fonkoon Serigne Touba nekkoon taalibe modeste saadix waaye naka noonu itam na fonk woon ak njabootam ba ñoom ñëpp am ak ñoom relation waaye itam naka noonu daf leen a daf leen a wormaaloon lool jox leen wàccuwaay bu kawe eh, Cheikh Fadal mi ngi wax ni maag sama mag sëñ Modou Moustapha ba ñu sëñ moo soxna di jox oto nee na booba am fasu naaru góor bu baax rek jafe na euh, kon mooy barke bi ñuy wax léegi nga xam ne moom yàlla daf koo teel a euh, suñu borom daf koo teel ubbi lool ci wàllu am-am te loolu it euh, ba tey li nga xamee ni maanaam liggéeyu ndey ci kër wayjur lu am solo la ba tey am na ci am na lu ci Seex Mahamadul Fadal daa nettali dadaa wax ni suñ moo soxna li tax lu mu bëgg mu yomb ko rawatina li ci ci wàllu àll àddina nee na loolu dafa mel ni ki wayjuram soxna Njaay rek moo ko liggéey ndax nee nañ ay jamono Maam Mor Soxna Jaara mi nga xam ne mooy juram dafa amoon dafa amoon soxla dafa amoon soxla soo xam ne mel na ni xawoon naa jafe eh, bëtam xonq te booba xaw naa jaaxle soxna jaay su dal di jég loola moom ko yëgee wax nañ ni takkaay yi nga xam ne moom lañ ko waajal woon bu muy jógee kër juram di ñëw ci kër gi maanaam ngir di jaamu si yàlla wax nañ ne takkaay yooyu yëpp la dem dal koy jël yëpp dal koy dajale dal koy indil sëriñ bi daan ni ko Eh, lii kat du faj dee gàcce rek lay faj daan ko boo ko defee léegi kan mën nga koo faje say soxla wax ne suñ Mor Jaar nag dal ci dal koy yéene ak yéene li ñaan daan ne ko ni nga ni nga ni nga weexalee sama bët nii yàlla na yàlla weexale noonu sa bët tam feeñ ci sa njaboot. suñu suñu fàllu mu nettee lool ba ba noppi daan ni suñ Mor soxna nag maanaam barke bi nga xam ne am na ko lu mbëgg ma yomb ko maanaam loolu moo ko may. kon wayjur yi bu ko defee war nañoo góorgóorlu waat bu baax a baax ci kër seeni eh, borom kër yi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla te xam ne lépp lu fa def rek lu ñuy liggéeyali seen doom la loo xam ni ëllëg xëy na doom ja mën na koo barkeeloo euh, bu ko defee maanaam ci ab tënk rek noonu la doon doxee ak Cheikh Mouhamadul Fadal naka noonu itam ak Cheikh Mouhamadul Moustapha nga xam ne lu masaan a moom dañ ciy dañ ciy jël seenub cër Cheikh Mouhamadul Bachir ko ne xam ne ni tiib gii bi nga xamee ni mi ngi koy gor wala boog masoon na am gor boo xam ne wax nañ ne amoon foore boo xam ne dafa fatt lool mu bëgg ñu goral ko ko te booba nag xamul ko am mbooloo moo xam ne mën na koo goral même waxtaanee kenn ci mbokk yi mu ne ko suñ ma soxna da laa xam ni moom boo demoon ci moom bu la ci gontalee mel ni ngont jàpp nañ lépp dana mën a dana mën a sotti mu dal di yónnee ci suñ moo soxna wax ko ko wax ne suñ moo soxna dal di yónnee ci taalibe yëpp ni bis sàngam nañ dem tiib suñ basiiru dafa bëgg ko goral ay toolam la xamal ni itam ko amoon doole waaye ko bari woon mbooloo la ndax suñ Maam Mor Jaara bi mu fi jógee rek maanaam la nga xam ne ñoo ko toppoon ñëpp dañoo topp suñ Mor Soxna ak lim liggéey suñ Tuubaa am ngërëmam itam booba mbooloo mu baree bare dañ ko caa topp waaw wax nañ ne bañ maanaam avant ngoon di jot sax maanaam lépp daaneel nañ ko nga xam ne mi ngi koy waxee suñ Basiru sax naa ko toll yëgganam daf koo bett ndax daa jàpp ne waruñ ko woon a mën a liggéey ci eh, diir bu toll noonu si Abdul Ahad na ko noonu itam daane fekk suñ Mor Soxna wax nañ lu bari ndokk di ko di ko seeti na bis boo xam daf koo seeti nee na daf ma daf ma defal ay teranga yoo xam daf maa tëral nee na ba dama rus ba nga xamee ne tàggu naa ko di ñibbi itam moo jël otoom nee na ma ba sama kër kon yooyu yëpp day wane taxawaay bu am solo boo xam ne amoon na ko ci njaboot Seexul Xadim waaye naka noonu itam la ko amee woon ci njabootu Maam Mor Jaara xam ne ñoo nekkoon ay mbokkam ndax niñ ko waxee moom dafa wuutu Maam Jaara njëkk a nekk ab xalifaam Maam Mor moom maamoo soxna jaar daanaka ñu fi bàyyi ñu baree bari boobu fekk ne ci ak ndaw lañ toll nga xam ne mën nañoo taxawu ci wàllu jàngal leen ak yar leen ak taxawaay bi nga xam ne yëpp rek kilifa war na koo taxawu ci ñoom moom moo leen woon moo amoon moo amee woon taxawaay boobu ba gis nga sëñ Seex Atta mi nga xam ne moo ko njëkk a wuutu sax ngi jégg sëñ Seex Asta mi nga xam ne moom moo ko njëkk a wuutu euh, ku ne xam ne ni kër gi moom sëñ moo soxna moo ko jëndoon kër Maam moo Jaara kër Maam Mor soxna jaar moom moo ko jëndoon waaye nag dafa waxoon ne nañ nañ nañ ko teg ci loxol Sëñ Seex Asta ndax dama bëgg ko fi toogal Maam Soxna Jaara maanaam nekk ci kër gi féetewoo ko ginnaaw ba itam mu bàyyil ko fi lu ama am solo loo xam ne moom dana ci mën a tàmbali ak xilaafaam bu ñëwee ci ay jikkoom itam ku rafetoon jikko la koo xam dafa yaatu woon uuf ñëpp waaye amoon yitte ju kawe itam te yitte ju kawe ji nañ ko waxee ci ak njëlbeen ak ni mu ñëwee ci sëriñ bi rek dana wane loolu waaye nekkoon ku ñime njaboot nekkoon ku ñime responsabilité Eh, siñ jili gànnaar yàlla na ko suñu borom doole fay daanaka saa bu ñuy wax lii man sama xel ci moom lay dem nga eh, xam ne moom ni mu ñi woon responsabilité ni mu ñi woon njaboot nga xam ne lépp lu ko war rek moom daf koy nangoo gàddu te itam luy woyof ci moom lay doon eh, kon loolu boo xoolee dafa mel ni que ak njabootam dafa feeñ ci ñoom mel na mag ma ko daa wax suñ ma soxna moom maanaam jurut nit maanaam ñi mu jur ñi yëpp koo ci xool rek maanaam day mel ni tànneef la ànd ak xam-xam bi nga xam ne amoon na ko te du ko wane mukk yewwute gi nga xam ne moo nekkoon ci moom Eh, daa rafetal ci ñëpp itam nga xam ni képp ko ko xam rek maanaam ci ak rafetal la ko xamee loo tax dangay dégg kenn ci mbokk yi bi mu koy tagg di wax naa fa in lam tara cheikh al karima muhammada fasur naj lahoo mor soxna zal juudi wan nixal mu ne bu fekkee da ngay dégg maam mor soxna jaara te xamoo ko jikko ja rafet yi nga xam ne moo ne woon ci moom nee na bul nekk di wër wala ngay sonn na nga dem rek ci doomam suñ mor soxna moom boo fa demee mboolem lu nekkoon ci maam mor soxna jaara jikko yooyu rek ngay fekk ci moom teg ci manil juudu wal maaruf wal ilmu wattuqa xisaalun alayhi kaamilul wasfi wa samal mooy ki nga xam ne boo demee ci moom mboolem luy xeeti njekk lu ñuy defal nit dana la ko defal mooy ki nga xam ne ak tabe ci moom la fekk baax mooy ki nga xam ne xam-xam itam mboolem la xam ne dañ ko ciy fàggu lépp am na ko mooy ki nga xam ne ak ragal yàlla dafa nekk ci moom te jàpp naa ne jikko yi buñ ko waxee ci nit rek maanaam mu doy sëkk muy ak ragal yàlla mi nga xam ne moom mooy cosaani jikko yu baax yi muy ak tabe muy njekk nga xam ne képp ku masaan di seqal itam njëkk ngoog la koy defal boo ko defee kon léegi dañ koy tëj rek eh, yàlla dogal bi nga xamee ni toog na fi fukki at ak ñett ci génnaaw way juróom Maam Soxna Jaara ci la yàlla dogal mu bàyyi ko fi. ni ma ko waxee léegi waaye ak eh, bi mu fi jógee itam ni mu fi jógee dafa yéeme ndax dafa mel ne moom xamoon na ni mi ngi doon tàggoo day dem. ndax wax nañ ni bi mu tëddee fi nga xam ne fi la tëdd wax na ni ci ci la woolu ñi nga xam ne amee na leen bor yëpp. ñi nga xam ne ñoo fa teew ñoo fa ñoo fa mën a teew mu génn ab ab kalpe génn la nga xam ne amel jox leen. ñi nga xam ne fekk wuñ fi naka noonu mu dal di dénkaan lii nañ ma ko joxal di lii nañ ma ko joxal di nga xam ne ay borom yëpp fay na ko dal di dénkaan li muy dénkaane dénkaan loolu ci la ci la waxoon loolu daal ni bu ma fi jógee suñ seex atta maanaam na féetewoo kër gi am lu am solo itam loo xam ni bàyyil na ko fi ba génn sax li nga xam dafa wax ne lii na ngeen ci jënd samay càngaay ak fi ngeen may waajal ba wax sax fa nga xam ne fa lañ koy denc maanaam ci wetu Maam Mor Soxna Jaar nga xam ne boo demee tey mi ngi ci wetam nga xam ne na Aboubacar tëddee ci wetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom itam noonu la tëddee ci wetu Mamor Jaara bi nga xamee ne tëdd na sangu rek booba ci la wuy ji boroomam loolu mi ngi nekkoon ci weeru uh, bisu juma ñaar fukki fan ci weeru jumaadul ula nekk ama jën sa suñu itam moo tolloog 1353 dëppoog 31 août ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent maanaam muy 1934 ba tey jii barabam ma nga ci mbusoobe boo demee Eh, fekk ko ci wetu Mame Mor Diarra eh, tëjee ko bayit yi nga xam ni ñaari bayit rek la yi nga xam ni eh, Mame Balla nekk rakkam moom moo ko def ci moom bi wax bi fii siñ moo soxna jógee naa fa faqdu sheyq mamar mamar soxna rusun musibun lirrijali wa linnisaa'i tadaadaat alqura isbaana anha xamaahatun nasihati walxayaa'i humaamun laysa yasduru anhu sheyun bila miimin wala daalin waxaa'i mu ne cay ñàkk gi ñàkk suñ moo soxan di musiba bu mag la moo xam dal na ci suñ kaw muy musiba moo xam dal na ci góor ñi ak jigéen ñëpp mooy ki nga xam ne dëkk yi moom moo ko daa dundal looloo tax bi nga xamee ne jóge fi nee dëkk yëpp dañoo tasaaroo dañoo ràpp mooy ki nga xam ne lépp lu masaan def rek maanaam lu ñuy tagg la anda leen lay sa jes doroxanu sey un bila miimin wala daalin waxaa ilu li ñuy tuddee alxuruful muqattaa boo boolee miim ak daal ak xaal lan lay tekk mooy almadxu lépp lu masaane jëf wala moo wax ko lu ñuy tagg la lu rafet lay doon kon boo ko defee xëy na ak dundam manees na cee jàng ay leçons yu baree bari ndax wax dëgg yàlla lépp njariñ la eh, ta ko xam itam xam ne wax dëgg yàlla mag la wuutu waaye moom itam ki mu nag maanaam mat mat mat mat na palaasam sëkk wax dëgg yàlla nekk koo xam ne li mag ñi di daa liggéey daa ko faggu am na ko boolem li nga xam ne itam dañ koy nawi nit ku baax lépp itam góorgóorlu na ci farlu boppam moom itam ba am ko comme ñaan nañu ko yàlla gën a dollee fayal bu ko defee loolu ëpp tënk la rek xam naa foofu la ñuy taxawandi di ñaan yàlla gën sàmm ñi nga xam ne ñoo di ak njabootam tax ñu ne mag la nag ndax yàlla dogal na njaboota maanaam doomam desu fi ki nga xam ne fi ne moo nekk ci bopp njaboot gi suñ baari bétoo doom suñ Moustapha bétoo ab sëtam la ñu ngi koy ñaanal ñoom ñëpp ñu yàgg fi te wér lool ba yoon wi nga xam ne fa la seen wayjur jaaroon ñu faa jaar li nga xam ne amoon na ko yéene yëpp itam ci bokkoo liggéeyal ci diine yàlla dëgëral ñoom itam ban mën koo yeggale di siyaarawaat bu baax a baax ki nga xam ne mooy suñ xalifa suñ Mamour Mbacke xam sa diine di ñaan suñu borom mu gën ko fee yàggal te wéral ko moom itam ba li nga xam ne mi ngi koy liggéey suñu borom matal yéeneem wa axiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Seexuna Mbàkke noo ngi lay sant bu baax a baax di la jaajëfal ci jataay bu am solo bi nga xam ne indil nga ñu ko ci euh, dunduk sëriñ Mor Soxna mu mel ne li ñu doon séntu ci jataay bi lépp am nañ ci lu kawe sunu njort ndax euh, ku ci xamee wutoon am nga loo jot a xam ci dunduk sëñ Mor Soxna waaye ku ci xamee woon am nga loo ci fàttaliku ndax it dëgg sama classe gi am na lu bari loo xam ne umpale woon nañ ko ci ak dundam waaye bis ñi ko tey lu bari leer na ci kon sëñ Cheikhouna ñu ngi lay jaajëfal ci turu ah, daayira taawun alal birri wa ah, ci eh, turu sëñ Mor Mbacke xam sa diine mi nga xam ne moo ne ci bopp ba ak mboolem njaboot gi yëpp noonu ngi lay sant bu baax di lay jaajëfal di ñaan sunu bon subhaanahu wa taala mu yokk xam-xam bi te barkeel ko